lañu tabb mu doon garde des Sceaux ba tey jii mu nekkoon avocat général de la cour suprême magistrat de haut rang bi di Ousmane Diagne muy ku xam bu baax li ñu ko dénk te mu ràññeeku woon bu baax a baax nag ci jubal ak dëggal tënku nag ci lépp loo xam ne moom la charte réew mi santaane mu di ci taxaw ci fula ak fayda mu nekkoon fi doyen des juges d'instruction nekkoon itam procureur de la république Ousmane Diagne mayuloon dara ñaari régime yi fi nekkoon muy bu Ablaye wadd ak bu Macky Sall ci ay dossiers dossier yoo xam ne dafa laale politique lenn ci ay firnde Ousmane Diagne ca jamono joojee nga xam ne mu ngi nekk procureur général près de la cour d'appel moom moo amoon fitu saisir division des investigations criminelles ngir ñu instruire ab dossier boo xam ne dafay joxoñ baaraamu tuuma ki fi nekkoon procureur bu Dakar di Serigne Bassirou Guèye naka noonu maître Gabi Sow ci coowal Sweet Beauté ginnaaw ba mu defee lu ni mel sax ca la ñu ko daal di teggil boobu leen dombal tànk daal di koy yóbbu ca cour suprême mu nekk fa premier avocat général ca jamono jo xam ne Ousmane Sonko mu ngi nekkoon ci xeex gu métti ak régime Macky Sall bi moom Ousmane Diagne itam ca jamono jooje mu ngi nekk procureur général ca cour suprême moom moo jàmmarloon ak agent judiciaire de l'État sàkku nag ngir ki di Ousmane Sonko ñu delloo ko ci liste électorale yi naka la ko tribunal d'instance bu Ziguinchor sakko procureur de la république ga mu nekkoon itam daawul hésité benn yoon saytu ay dossier yoo xam ne dañu ci joxar bi baaraamu tuuma ay kàngaamu réew mi ci wàllu luubal te mu jugee IGE ARMP naka noonu CENTIF régime bu yees bi nu fal Bassirou Diomaye Faye di njiit la Ousmane Sonko nekk jëwriñu mu njëkk la ñu bëgg mooy ñu joyanti bu baax a baax lii di wàllu justice fii ci réew mi Ousmane Diagne nekk koo xam ne kenn mënu ko ger saa su ne muy tëddee njaxanaay si lépp lu muy àttee ci wàllu yoon muy ku diiñ ku dara feesul ay bëtam moom nag moo gàlloo ci ay ndoddam réforme yu mucc ayib yoo xam ne moom la régime bu yees bi di sàkku